day. Created wise of the day. Created is now. Well, ay ngi noonu Boy Dakar a ngi noonu waaja sifflé Boy Dakar la noonu xoolal ma lay waay ndeysaan Boy Dakar Petit Niang la mujjee daan Boy Dakar ak Gackou 2 Gackou 2 moo mujj dan Boy Dakar ngeen jàkkaarlool am na lu mu sawaay jël na ko waat ko ko ndeysaan Boy Dakar Gackou 2 arbitre bi sifflé na mbokk yi ku ñuul Gackou 2 Boy ñu ngi noonu ñoom ñaar Boy Dakar moo ñu Boy ñu wet ñëw nañ côté bi Gackou 2 moo la féetee ndijoor Boy Dakar moo la féetee càmmoñ ndaysaan ndaysaan nee na ko taxawal day bañ Gackou 2 xale yi tëj lamb day mel ni ku la ragal te ragalu la Gackou 2 Boy Dakar daf di ak gis victoire combat Boy Dakar moo def 10 combat 10 victoire. ah Boy Dakar moo def 10 combat. Boy Dakar mooy jël ay dàq a tëj ci lu yàgg dëgg la. Boy Dakar doon na kuubu dal léegi. da koo remise. Boy Dakar moo leen féete càmmoñ jàkku doo moo leen féete di joor dooraat na. Boy Dakar gi door du ko neexee. Boy pànk la. daa pànk génn na saako yi waaw day ñëwaat arbis day ñëwaat. gàkku doo Boy Dakar. arbis bi la waat na. ñu ngi demee wet. Gàkku Dóo Boy Dakar la ñu jàkkaarloo moo tent bopp bi. Gàkku Dóo Boy Dakar. Gàkku Dóo Boy Dakar. Gàkku Dóo Boy Dakar. Gàkku Dóo Boy Dakar. Jokkaas na. Gàkku Dóo Boy Dakar. ci ñuy teg pied gauche. Gàkku jokkaasaat na. dóoraat na. jege si nañ ñu jege si nañ ñu. gàkku doo Boy Dakar Massamba Mass yomb ñoom ñaar nga foog na Boy Dakar doon problème tey door na nga koy fayu dinañ xeex tàcc jàngal takkar naa se Boy door na gàkku doo door na saaku yi Boy Dakar daa mel ni dafa jël cour Boy Dakar dafa mel ni jël na Boy Dakar am na deux avertissement li mooy quinzième combat quinzième combat kaw gàkku deux moom Mass yaa topp xale yi fu nekk dem wet ñëwaat ñaari nga Boy Dakar li mu def léegi gëmu ko. Gackou da koy indi ba ma ragal ko gëmul koy woo. Gackou 2 Boy Dakar. am na koy dóor muy génn bëgg Gackou 2 bëri mu bëri ci kaw ba dem. dóor na ko. daje nañu Boy Dakar dóor na Gackou 2 dóor na attention. kurfe yaa ngay takkar naase. ñoom ñaar ku ci nekk ah, mi dóor sa ay kuy daaw. Boy Dakar li mu def gëmu ko ragalul de. ñaari xale yu pànk la. stratégie la def Kakou lay teg. Boy Dakar daa pànk. ma fekk ñaari pànk ñooy xeex. Kakou gi dox ci kaw. door na daw na jubóor jàppante nañ. door na ko perkut. ña ngay xeex jël na ko daw na jàpp. Boy Dakar jël na jàpp. Kakou du ko a jàpp. ay baayantuwaat nañu. galaaj yaa ngay dëkk. ci SBT Média. Kakou Boy Dakar. maa wax loolu. ñaari xale a ngi noonu ña ngay jàmmarloo Gackou door Boy Dakar lu mu door na ah Boy cokkas na Gackou sa fe sa garde bi ferme ko baaxul dooraat na Boy Dakar ngi door nu ko neexee waaye ay korosol lay door ay korose loo lay dóor woo ci xeex bu mu gëmul. may ko may ko waaw may ko may ko may ñoom ñaar kenn gëmu ci xeex ñuy naxante attention ku nekk ci nekk sokk na. Gackou doo sokk na. Boy Dakar sokk na. Leewtoo baa ngay gaaw gis nga. ay ca ñu ngi boo demee attention Karo gàkku door na booy Dakar door na Ardo bakkanu gàkku door na booy Dakar dooraat na booy Dakar ngi door Ardo arbitre bi gisul deret arbitre bi gisul deret dooraat na ko arbitre bi gisul deret dooraat na ko caatu rëbës dooraat na ko dooraat na ko atte nañ kaay leen gàkku daw na jël booy Dakar dafa bëgg gàkku dëkk yóbbu na ko Ardo am na droit avertissement. xeex nañ ba benn station bi waat ñoom ñaar bu rëbës dem na Ardo. Gackou 2 ak Boy Dakar. ñu ngi noonu ñoom ñaar nga ci caatu rëbës dañ koo daan digal na Boy Gackou. Boy Dakar Gackou na suuf. Boy Dakar Gackou 2 arbitre dara ko loolu amul. arbitre bi sifflé waat na suuf bi lay bañ mu jóg. Boy Dakar dinañ xeex ñoom ñaar dinañ bëre. ku ci nekk dem na ardo ñëwaat. Boy Dakar dem na ardo attention gàkku dem na ardo Boy Dakar. ñaari jàmbaar lañ. eh attention. nañu Boy Dakar xeexaat na. day xeex nañu ñoom ñaar. gàkku door na door na. ngi naan ko bàyyi suuf si. nga ne Boy Dakar ku ko andi Tapha Boy Bambara. Boy Dakar gàkku jegente seen tànk yi jegente nañ. gàkku day seen loxo yi jegente waa nañ. xeex dinañ bëre ñoom ñaar. combat soir la ñaari xale yu mën a xeex mën a bëre. léegi wante da. gàkku de. Ndeysaan gàkku ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu. ñu ngi déglu na. Boy Dakar 10 combat 10 victoire na léegi. 10 et Jàkku ndeysaan. day jël avertissement Boy Dakar signalé na. 4 avertissement. Boy Dakar jël na avertissement. arbitre sifflé waat na. boo amee 5 avertissement perte combat bi Boy Dakar. avertissement. waroo woon génn waroo woon génn na Boy Dakar gàkku deux Boy Dakar na dem songu boo génnaatee saa fi Boy Dakar door na Boy Dakar door door na turaat dugalaat na beneen dooraat na Boy Dakar de eh, Boy Dakar dooraat na ma ngay Boy Dakar jëli na ko jël na ko Boy Dakar jël ñoom ñaar. jege nañ saako yi. ñoom ñaar dafa baax. ñoom ñaar. Boy Dakar bu génnee saaku yi day am cinq avertissement te bu amee cinq avertissement dañ koy disqualifié. man fa jàpp boo yeexee doo am lu noonu kon combat baa ngi noonu. Gackou 2 Boy Dakar. Boy a génn caxabal ba ñoragul. waaw waaw. ñu ngi noonu ci combat bi. mu koy génnee. da waaw waaw. Boy Dakar combat Gackou 2 gañe na. Dakar génn na Gackou 2 dem na Ardo. Gackou 2 génn na Boy Dakar. Boy Dakar demal. Oh, waaw Gackou demal faju. Oh, waaw waaw. maa leen di dégg. ay. Elton tatatat waaw waaw ande ma folo waaw ay waay lamba ngi ndeysaan arbi bi sifle waan na combat bu ñoom ñaar ñu ngi noonu yaa bi la président bi soxloon Boy Dakar Gackou 2 Boy Dakar ñu ngi noonu door na ngay door door na ñaar ñi ngay jokkaasante ku ci nekk sonn na ci combat bi Gackou 2 Boy Dakar lu ma leen waxoon waxoon naa leen ñaari pànk ñooy bëre ñaari pànk du yomb ñëwal Gackou 2 Boy Dakar Gackou 2 Boy Dakar mu ngi koy jokkaas ngi noonu waaw waaw ñu ngi noonu ndeysaan lamba gi ñaari xale yaa ngi noonu ee eh. door na jëli na ko jeex na jeex na cinq avertissement ndeysaan Gackou 2 jël na ndam Gackou 2 jël na ndam Gackou 2 jël na ndam li ci kaw Boy Dakar Gackou 2 daan na ko